salaamaaleykum mbokk Massa tey nag ñu ngi am contentement bu rëy toog ak ki nga xam ne moom mooy euh, Bass donc dañ koy bàyyi mu présenté ba pare ñu euh, ñu mën a gën a xóotal waxtaan wi. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk waa Kër Massar yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar man tur bi Mouhamed Bachir Touré la gardien de but euh, LGB ñaar tali maa ngi waa KM Info di nuyu waa commune Kër Massar donc Bachir est-ce que nga ñu wax tuuti rek sa sa jaajaat. waaw. bon Bachir moom benn jour bu modeste la rek bon jaar-jaar moom xóot na xóotul daal parce que yaakaar naa ni comme joueur yu bari fi jaar rek ci centre yi dem Agora Foot jaar naa fa juge fa am opportunité dem Kaolack FC jóge Kaolack FC dem ay Saloum juge ay Saloum ñëw GFC jóge GFC dem Ngor maintenant maa ngi NGB quoi à l' d' accord Youssou vu que euh, Bass vu que tey jii club yi nga jaar noonu yëpp ay club yu mag lañ tey jii nan nga gisee euh, gox bu mel ni Kër Massar ñàkkam stade. waaw loolu moom loolu moom loolu moom euh, loolu moom garaaw trop vraiment man ni ma ko gisee moom mooy dëgg yàlla war nañu waroon nañu am stade bu yàgg ko parce que fii déjà la preuve man rek déjà am na benn sélection ma fi taxawal boo xam ne presque ay jour Ligue 1 Ligue 2 rek ñoo fi joué donc fii y' a pas yoo xam ne Ligue la ñuy joué. tey bu Kër Massar amoon club yaakaar naa duñ génn dem di entraîné ci feneen dèjà damay jël euh, exemple ci man fi ma nekk man muy man muy Ahmed Penta muy euh, Alassane Sow muy Ali Diko mi ngi dëkk fii Malika ñun ñëpp ay joueurs yu mag lañ jor yu confirmé ci Ligue 1 bi xam nañ leen mais ñun ñooy génn fii 6 heures du matin dem garage feneen di dem jëli ji bus pour dem Colobane xaar foofu suñu bus ñu yóbbu entraînement difficulté yooyu ñuy rencontrer peut être suñu amone club buñu amone stade suñu club dina mëna monter ba ci ligue pro bi ñuy ñëw jàpp ci te boobaa dina nekk gëm na ni dina nekk club bu mag quoi parce que li fi nekk ci ay talent mom man bari na ñoo xam ñi ci ligue pro bi te xaw ma leen sax te keur ma sax lañ nekk. yaa ngi wax légui ni am ngeen sélection bi nga xam ne soo xoolee ay joueurs ligue 1 ligue 2 ñoo ci nekk te so xolé ñep dañu di génn Kër Massar dem di représenter yeneen club te Kër Massar fi am benn club bo xamne peut être suñu amone stade dina mëna avancer lool qu'est-ce lan la leen def seen bi xol quoi bon bah, neexul quoi parce que tamit gis ay jeunes yoo xamante tey non seulement terrain yi ça pose problème bu ñu entraîné si suuf dem un bon jour ñu à 100 pour cent ci gazon ça pose problème première des choses da problème ndax si si entraîné. appi bi nga am ak par rapport ak gazon bokkul vivacité bi dafay manqué. Mhm. ak aussi tamit repère bi. yooyu yëpp daf ci poser problème mais moo tax moo tax vraiment moom suñu stade moom bu ñu ko amoon dina baax quoi bu ñu ci autorité yi mënoon jàppale aussi. Mhm. dina baax trop pour jeunesse bi même bu dul di ñëw nekk suñu ginnaaw quoi. Mhm. loolu dina baax. d'accord yow miy nekk tey euh, li nga xam nga ni am na ay joueurs yi nga xam ne ñu ngi lay déglu. am na ay joueurs yu nga xam ne dañuy xool si yow maanaam yow référence nga lan ban message nga war a mën a lancer auprès de tes frères là yi nga xam ne dañuy waaw moo message may lancé mooy euh, jour yi nga xam ne yàlla dimbale leen peut être ñu nekk si benn niveau bi jéem a xool nu ñu booloowee biir Kër Massar euh, xeex lii ko parce que bu ñu ko xeexee peut être mën na bañ a doon pour ñun mais mën na doon suñuy jarbaat suñuy doom suñuy rakk pour ñoom ñuy ñëw quoi parce que ñun li ñu dund lu metti jàll na mais ñaanuñu suñuy rakk dund ko wala suñuy doom a ñeneen ñeneen quoi vraiment stade moom soxla nañ ko trop trop trop trop trop li ñu si mën a jàppale dina baax trop quoi vraiment incha allah donc euh, collectif yi mu ngi xaar tey jii yow en tant que jour ligue tey jii nga mobiliser ñi nga xam ne amaan ñoo nekk si domaine boobu noonu ñu ànd xeex pour que sax am stade je pense que loolu noonu moom war ngeen see mën a war ngeen mën a pare pour def loolu bien sûr pare nañ ci moom incha allah rabbi dinañ dinañ ci dinañ ci taxaw lu ñu mën ak lu ñu mënul parce que loolu suñu suñu suñu suñu mbégte la suñu fierté la quoi vraiment parce que ñun aussi tëbuñu rek dem Ligue 1 mhm. ci ASC lañ jaar mhm. dañu joué cadet mhm. joué petite catégorie yëpp dem joué équipe nawetaan ba ñu am visibilité équipe Ligue 1 gis ñu contacté ñu ñu dem donc euh, yaakaar naa ne daal stade bi moom bu ñëwee moom. Mm. dina nekk affaire bu baax quoi vraiment. d' Bas waa collectif Kër Moussa réclame son stade ñu ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi leen di jaajëfal aussi. jaajëf jaajëf merci beaucoup.